gëm sa bopp daal di ci génn alors comment est-ce que nga ñu mën a analyser jàngatale cette situation bi nga xam te ne nii xewul fenn fu dul ci opposition Sénégal. waaw jërëjëf Mouhamed ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax. Mhm. di leen ziar am mbégte ñëw ci plateau bi encore seen show. Mhm. effectivement opposition bi ñu ngi doon xaar coalition. Mhm. parce que quand même. dafa jàkkaarloog wujj woo xam ni préparé na bu yëpp. muy benn bokk yaakaar. nekk coalition de coalition depuis longtemps. donc opposition bi pour mu mën a am résultat il faut que mu def ni bennoo def jéem a nekk benn maanaam coalition alors lancé nañ idée bi baax na démarré nañ activité yi bi mm-hmm. am na quelque problème déjà am na ñoo xam ne dugguñu mm-hmm. mais aussi gis nañ aussi buggaan dugg génnaat mm-hmm. maanaam dugg benn tànk génnaat alors ni ma ko mën a analyser euh, crise boobu da ngay def référence ci divorce divorce bu amee euh, li ñuy wax nit ñi officiellement day am lu ñuy wax nit ñi officiellement am loo xam ne duñ ko mën a wax. absolument officiellement. alors euh, impression boobu laa am parfois ñu dul mën a wax mooy ëpp solo lu ñu li ñuy wax. et c'est comme dans les divorces alors dans un divorce aussi. am na benn motif bu ñuy retenir même bu dee don divorce par consentement mutuel ñu koy wax incompatibilité d'humeur maanaam c'est un motif fourre-tout maanaam ñu dem ba si biir am ñoo xam ne ci biir ñoom déggoowuñu c'est-à-dire du du question programme moo leen moo leen moo leen moo leen jotale mhm. du question orientation du question ambition mhm. ñoom ñëpp ñooy ambition du vraiment ay stratégie mhm. mais c'est une personne et c'est un problème de personne c'est un de personne léegi nag du lépp lañ mën a wax évidemment semble-t-il dafa dem ba ci biir li nga xamante ni mooy prétexte bi ñu joxe mooy couleur yi ak logo bi yooyu xam nga ay baykat bu ñu di bay ñax mi bari lool ku nekk génn sa kër yor sa ileer mm-hmm. waaye du jote ay tengaade mm-hmm. couleur tengaade ki mbaxane kon xam nga prétexte la encore une fois mm-hmm. <laughs> donc problème bi dëgg-dëgg mooy day dem musique am na ñoo xam ne safoontu safootuwuñ ñu maanaam kenn safootul sa moroom loolu mooy problème bi. te loolu c'est un problème très sérieux nag. te day nekk ànd bu nga xam te day day day métti dès le début alors. Euh, waaw cette position laa ñu gis ñett. ba ñeent ci ay coalition ci opposition bi alors que yaa ngi wax léegi euh, euh, pouvoir bi ñoom euh, coalition bi bu ñu koy wax daanaka cheminer nañu ensemble ci ay at at yu yàgg est-ce que dina baax ci opposition bi ñu nga xamante ne am nañu ay xemmemteef ci échéance yu ñu jëm est-ce que dina baax ci ñoom non bu ñu amoon lu ñu lu ñu gënal ñu gis opposition bi ñëpp ànd mhm. mais loolu aussi dafa jafe si politique mhm. mën a dajale ñëpp day jafe si politique parce que contradiction yi ñaar la benn bi mooy ñi nga xam ne ñoo ëpp doole ñaare ñooy ëpp baat. d'ailleurs fii diggante xalifa Sall ak euh, Pastef Ousmane Sonko pratiquement. Mhm. Euh, noyau dur.